bàyyi. après jox kii nu mu tuddati euh, def ouverture démocratique. absolument moo tax ay ñoo ab Blondin Diop xeex ñu doon xeex. Mm-hmm. dégg naa professeur Assane Seck ancien ministre d' mm-hmm. am na doomam boo xam ne ministre la ci gouvernement bii nii. Mm-hmm. Euh, mu ne moom boobu mooy ministre affaires étrangères. ci avion bi ci benn voyage mu ne Senghor. après décès de Blondin Diop étudiant il faut nga def ouverture démocratique. parce que parti unique bii nii mënatul dem de Sénégalais bu yàggee dañuy de moom préparer départ Abdou Diouf ñëwee jàkk-jàng bi ku mun noddal ñu dem ba Abdou Diouf tamit jàkkaarloog jeunesse bi naan jeunesse malsaine en 88 ci Thiès mais li mu ci teg après dafa andi ouverture mu commencé xëcc sax Abdoulaye Wade ci gouvernement bi di ndaxanteeg jeunesse bi si bien que mille alternance bi dafa ñor 2000 ay sot i ka xam nga yow fekkee nga ko coow amul Sénégal mooy élection yi gën a calme ci histoire du Sénégal élection l'an 2000 yi mm-hmm. mm-hmm. mooy Thiès mm-hmm. xam nga am na benn responsable bu ñu song këram ak yooyu ak euh, Mbaye bi cortège ah, Abdoulaye Wade bi ñu romb ñuy dóor fetal te kenn gaañuwu sax foofu mm-hmm. donc alternance bu paisible am 2012 mm-hmm. sax même chose ak li ñuy wax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mm-hmm. bon c' est vrai que y a eu 12 morts xaw ma 13 et koy déplorer mais ni ko gars yi di romancé ah naan ay kii di Ablaye kii di non non. Ablaye Wade dafa jàpp ne moom droit constitution mooy na ko mu présenté wu moom loola jàpp. Eh, eh, eh, te et bi ñu xasee ba ne Ablaye da mun na présenté wu benn coow amul. Mhm. campagne 2012 bi ñu on était des reporters. Mhm. man mi par exemple cortège su Ablaye Wade lañ ma affecté. Mhm. fépp lañ jëm ci Sénégal benn xeer jugul benn. donc loolu mooy suñu histoire léegi nag bu ay nit ñëwee nag léegi xam nga. ni ñuy def ci réseaux sociaux bëgg a loolu. bëgg a déconstruire mais dafay poser problème. dafay poser problème loolu du mën a nekk léegi nag xam nga xale yi nag man damay am yërmande si ñoom. Mm-hmm. parce que ndeysaan dafa am situation sociale bu ñuy dund. pauvreté chômage pauvreté bi chômage. Mm-hmm. moo tax entraînement day ñu yore pouvoir bi joxe wuñ exemple yu baax yi. waaw quand parce que y' a certains profils yoo xam ne bu leen di nommé dégg nga. bëgguma tudd tout quoi di personnaliser débat mais am na profil yoo xam ne bu ñu leen di nommé xale bi jàng ba am doctorat mënut a wala mu nekk ingénieur a gis koo xam ne ci poñ bi rek loolu nekk di taxawaalu ñu jox loolu ak loolu mm-hmm. après ça frustre mm-hmm. mais xale tamit du tee comme suñuy rakk lañ quoi mm-hmm. ñu leen rek tee lañ parce que comme ni ma la ko waxee sànq li andi ay branco ak ñeneen gis nga dynamique révolutionnaire yi souvent foo gis dañ koy jéem a li ñaan la révolution masse sur ses enfants ñi koy def bu ñu ko defee ba pare ay bande serveur yi nekkoon ci ginnaaw nag foofu la ñuy feegee <laughs> ah. te dëkk bi dafa am pétrole dëkk bi dafa am gaz dafa am ay yeneen ressources mhm. mais surtout xam nga Dakar côté géostratégie même place mhm. emplacement wu Dakar ëpp mhm. de projection la pour yu bëri ay surtout Dakar képp ku mus a jiite monde bi rek jëm nga jiite Sénégal diggante portugais yeeg hmm. diggante ah, fran français yi ba américain Dakar a été sous protectorat américain en 1947 hmm. juste après la deuxième guerre mondiale hmm. donc emplacement bu stratégique de Dakar moo tax pépp da koy jéem a contrôler yaa ngi gis Turquie yi ñu ngi ñëw damay wa faral di wax naan da ngay gis benn at rek en 2018 la plupart des grands de ce monde ont été reçus à Dakar ci 2018 boobu 2 février la fi Macron ñëw en 2018 y la fi Angela Merkel ñëw Xi Jinping Bushin, Chine na fi. rencontré Vladimir Poutine en mars de la coupe du monde euh, on a enregistré trois visites de secrétaires d'État américains, en moins de trois ans au Sénégal. Mhm. mais la tax c'est vrai qu'il y' a gaz il y' a pétrole mais dañoo nekk ci ay bouleversement géopolitique mhm. sous raison. comme nous l'avons la Dakar. Mhm. bi e le cœur du précaire français mais dafa am un enjeu.

Euh, lentement mais sûrement ci un euh, euh, pan de de l'actualité, mo aju ci dissolution parti PASTEF bu Ousmane Sonko dissolution parti PASTEF bi euh, ñing ko prononcé dans la foulée arrestation wala incarcération Sonko le, que le temps muy hmm ci lañ ko euh, prononcé gis nga démb sax euh, décret bi génn bi nga xam président moo ko euh, moo ko moo ko def notifié nañ ko aussi Birame Souleye Diop mi nga xam ne mooy administrateur parti bi et l'un des signataires donc du du du parti loolu nag dissolution Pastef boobu nag xale yi xamuñu Euh, lan ndax ñu bëri ñu ngi doog dégg mm, parti bi ñu dus ñu ngi ko doog a dund man ni sax ci laa bokkaale ndax ñun mm-hmm. il faut ñu remonter histoire pour xam ne amoon na yeneen parti ci foofu laa bëgg ñu jëmee fa ndaxte mm-hmm. tey boo xalaatee ne euh, ci euh, mille vingt 2022 yi ku jege président Macky Sall ku mel ne Mahmoud Saleh doon na ko junj waaw doon na ko junj di wax tamit ne fekk boobu mi ngi doon ñaawlu Euh, xet opposition bees bu ñu am nga xamné dañuy dox euh, ci euh, vraiment pas extrémisme mais radicalisme bo xamné violence euh batay en 2021 le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diom bobu ma nga doon ma nga temps yooyu waa Pastef ñu ngi doon def ay levée de fonds mu mu mu mu dakkal ko té fofu la ñu kon junjee dissolution

ci lañ ko décidé loo ñu ci mëna wax. waaw xam nga bo xolé lepp lu jëm ci affaire ay insurrection ak. Mm. motif yi ñu yaakaar ne moom moo tax ñu dissoudre passé mm. l'état n'a pas bien communiqué Il n'a pas beaucoup communiqué. parce qu'il y a une différence entre beaucoup communiqué. et bien communiqué et bien communiqué. Mm. voilà parce que on peut beaucoup parler. et ne pas bien parler. Mm-hmm. <laughs> et souvent c'est le cas et souvent c'est le cas mais dafa am lu ma jaaxal. Mm-hmm. xam nga Ousmane Sonko. Mm-hmm. sànq wax naa la ay aspect maa ngi fàttaliku mille 2016 rek. ci jamonoy référendum bi. damay dégg ay waa nguur gi daan am na ay ñoo xam ne ay opposants lañ am na ñu leen ngem waa bitim réew. pour pétrole bi. waaw loolu nag souvent euh, moo la sànq mode opératoire yi doxalee boo jëlee ay dëkk yu mel ni Congo wala Angola fépp ci monde bi rek. fépp foo am matière première stratégique. Mm-hmm. bon mode opératoire bi mooy. day dem ba xol nañ nit ñi dañuy jël ngànnaay di xex mhm. waaw loolu la. amul amul dara ci changé ah. xam nga mhm. fee yaa naan Niger ay Cobra boo demee Congo Brazzaville ak man ma commencé def di déglu xool. Mhm. mais xam nga loolu pour man euh, information bu sensible la boo xam du Mame Mbaye membre d'un parti politique rek moo ko wax même bu nekkee ministre quoi loolu. loolu information bu grave la ci réew. référendum 2016 bi Ousmane Ngom mu xawa melni da fay dafay amna ne am na ay touristes yu lëkkaloog opposition bi xam na yakoy fatali lu loolu ma jël li mambay di wax mhm. ak li Ousmane gom di wax en sa double qualité de mhm. néo proche de Macky Sall mhm, et ancien ministre de l'intérieur et ancien ministre de l'intérieur ma top di xol fa la wàññeentu tudi di muju ak gëtam léegi nak suma don Ousmane Sonko fof may politique man ci sama intelligence politique parce que euh, nit da ngay moytu tam Mm-hmm. da ngay moytu waxuma moo def wala defut. Mm-hmm. dinaa xool euh, samay wax li may wax lan la parce que dafa am wax yoo xam ne nii. Mm-hmm. Euh, xam nga ci histoire politique Sénégal mosoo gis ku jëm élection ne soxla naa dix milliards. soxla naa sax un milliard mosoo ko gis nag. te ku nekk xam nga ne fii nii gars bu ñuy dem campagne foo yi débloqué. dañu naan sax kii paye commande souvent. ku ëpp xaalis moo ëpp chance pour falu. Sénégal moom politique agar xaalis. mais Moustapha Niass macha allah ni ko yàlla may. mais est-ce ko dégg mu ne. damaa soxla cinq cent millions sax. pour dem élection. bi mu ko waxee nag loolu. Ousmane Sonko en deux mille vingt xaw ma la ko mos a wax deux mille vingt et am na fu mu ko waxee. mu ne daal bu ñuy dem 2024 nañu cotiser parce que il faut ñu matal ay 10 milliards yooyu. la ko tudd Ousmane Ibrahima Sène di sa woon sam papa. bu baax di gisee nañu ay weer rek avant muy génn àdduna. ndeysaan waaw parce que man côté géopolitique yii nii. Mhm. ko la. Mhm. mu bind ne xaw maa du blanchiment xaalis. Mhm. parce que kii euh, génne na kii yooyu. maa du maa xaalis. xam nga wax na ko maa lii du blanchiment xaalis Ibrahima Sène walaay waaw parce que. Je vais rappeler benn affaire à la décharge de passifs, parce que li lépp boo ko gisee itam de loi vacuité si financement des partis politiques en 2015 Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'intérieur circulaire sur le financement des partis politiques tellement que ko respecté benn parti la xam nga kan la